mbégte bi ci la ndongo CESTI yi bokk ci juróom fukkeelu moo doon jot seen lijaasa saal bi nag xumboon lool seen lim toll bu fanweer ak ñetti étudiants mu ëmb ñetti catégorie jaxite moom mooy ki jiitu ci wàllum rajo. waaw wax que ni mbégte bu rëy laa ànd ak euh, tey jii nii parce que nekk major ci sa promotion amul lu ko gën a neex euh, mais lu ko waral rek mooy liggéey bi nga xamante ne nii euh, bu mucc ayib. parce que CESTI moom jox lépp lu nga xamante ne ni ayoo na ngir journaliste mën a liggéey. moom jëwriñ ba ñu denk wàllum enseignement su di ñaax borom li jaasa yi ngir ñu roy kii ñu bàyyalee bés CESTI dafa daal di tànn ki nga xam ne mooy Jean Meissa Diop mu nekk parrain juróom fukkeelu édition bii école bi nag la mu bëgg rek mooy valeur yi nga xam ne moom la ràng woon ñu daal di koy gis ci yéen ndongo yi le njiitu CESTI nag ànd ak mbégte di sargal gune yi ngir xarañteef bu ñu wane ak liggéey bu mucc ayib bañ doon amal. chers étudiants chers yéen étudiants yi étudiantes yi la ñu góor yi ñu jigéen ñi léegi ngeen jot seen lijaasa te loolu day tax ngeen nekk tas xibaar te mooy liggéey bi nga xam ne moo gën a metti lool ci dëkk bi xew-xew tey bi nag dafa dajale ñu daan jonge te sest yi ak acteur yu mag ci njàng mu kawe mi journaliste fa Jean sa Diop yi nag la ñu leen sas rek mooy ñu nekk ay journaliste de qualité liggéey bu wóor comme na leen ko seen parrain jàngale Jean sa Diop mi nga xam ni dafa ràngu valeur yuy suuxat wàllum journalisme